tout est politique au tout Sénégal. Tout, est, politique, Donc, donc, je dis que ñun on est en de former de grande coalitions. Mm -hmm. Parce que il faut que ce pays comprenne qu'il y a d'autres forces qui vont naître. De dans quelques mois, on va voir que y dina am balancement. Mais gis nga le système gàddu bi Macky Sall daf ko war a dindi. parce que c' est malhonnête. Mhm. est très malhonnête man ak yow. ñuy xëccoo ñeenti nit. man ak yow ñuy xëccoo ñeenti député yow nga am juróomi point man ma am ñeenti point nga jël juróomi député yëpp il y a des députés et je l'ai dit l'autre jour en face d'une députée bu ñu invité woon te yàgg naa leen ko wax mhm. il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été élus par le peuple sénégalais mais qui ont été élus par un système démoniaque de gàddu mais gis nga bés bu ñu ko tegee ci yoon di nga gis ne assemblée bi dañ koy teg te gis nga assemblée bi sénégalais yi nañ ci jog taxaw jël les vrais sénégalais yóbbu leen fa en masse pour que puisse travailler parce que assemblée boo waxee ñu naan non président de la république bu amul majorité du liggéey tu crois que man dinaa dem nekk député le président de la république ba fay nekk ñëw ne ma Sanoussi on va voter cette loi mu leer na mu ne loi bi c'est pour l'intérêt du Sénégal man may banque sama loxo ko voter mm. ñu fekk ci biir assemblée nationale mm. c'est le cumul des fonctions amul sens. les jeunes ils n'ont qu'à se lever. boo jëlee tey par exemple quelqu'un qui est DG il est maire tu es ministre tu es maire et ce sont ces gens-là qui nous la loi. moi je pense que ñoom ñëpp ils ne sont pas du tout honnêtes. Mm-hmm. et j'ai bien aimé la réaction de de de de de de Khady Mahécor. Mhm, la nouvelle mairesse. oui <laughs> sama maire koñ la. Euh, golf foofu laa dëkk. macha allah je l'ai bien bi ñu ko invité Nouméla. elle est brave elle brave. Mhm. bi ñu ko invité Nouméla mi ngi may dégg dama ne ko. est-ce que tu es prête à être après être maire mu ne ma se pas jouable. mais wax na dëgg. l'association de maires du Sénégal ñoom ñoo dajaloo. ne les maires ci boppam duñ leen gis du ñu liggéey parce que ils sont trop occupés. yow déjà. être député rek c'est tout un monde. nga am un million deux cent mille. am bureau assemblée nationale am beneen bureau. xale mu ndaw bi nekk fii ci Géejawaay ci Yoff ci Kaolack di sonn. il faut que la révolution sonne on appelle à la révolution la grande révolution. mais la révolution des mentalités et par la citoyenneté. xam nga révolution bi mooy lan élèves na nañu dem ñu inscrire. téye seen i carte dem uti xam-xam aussi uti xam-xam non uti xam-xam bi moom wax nañ ko ba pare mooy école bi su ma leen waxee ne leen nañu wàññi seen programme bi mhm. nañ leen jàngal loo xam ne dafay tax bu ngeen génnee ngeen am liggéey kon man maa ngi ci wàllu xam-xam mhm. man xam-xam lu may def moom laay ittee man xam-xam moo ma ñor dara ñoruma mhm. j'ai écrit un livre maa ngi terminé yeneen trois man xam-xam rek moom ma ñor leneen ñoruma ci kaw suuf mais dama ne xam-xam day fekk nga am fulla ak fayda. le 3 mars dañuy tijji liste yi. nañu dem ñu inscrire yi. képp koo xam ne nii nekk nga fi maire wala nga am beneen fonction bu leen ko voteel pourquoi ñu leen di voteel ñu am deux salaires deux bureaux de la fu ko teg. réew mi ñëpp ko bokk c'est pas normal ñi koy défendre yëpp c'est parce que seeni militant dañ ko nekk wala seeni maire nekk ko mais ñoom seen bopp au plus profond de leur conscience ce que Rousseau appelle conscience divine ce juge là il sait que ci réew mu pauvre mii xale yi liggéeyuñ lekkuñ naanuñ quelqu'un se permet d'avoir deux salaires deux bureaux deux voitures non loolu du yoon du yoon man de bés bu ma nekkee député bu ma nekkee député soxlaatuma leneen tant que maa ngi nekk député xelsan waru ko ko euh, nangu euh, professeur ñu des ba tey si euh, xeexi Casamance bi il des fils naturels de la Casamance gis nga Sadio Mané message bi nga xam ne lancé na ko mu nekk une icône du football sénégalais rawatina si nga xam ne mooy àddina raw nga war nga këpp il fait la fierté de toute une nation mm-hmm. lancé message bu am solo ñi xaar aussi ku mel ni comme Euh, euh, le président Ousmane Sonko euh, nga xam ne mën nañu wax ne fu mu toll nii moo nekk maire de la Casamance. Mhm. mu artu aussi par rapport ak coow lii di Casamance est-ce qu'il n'est pas la personne la mieux abilité pour wax par rapport ak ñi nga xam ne mooy waay MFDC. Non, il n'est pas la personne la mieux indiquée. La personne la mieux indiquée, c'est le président de la République, Macky Sall. Mais il y a aussi, il y a aussi, mais il aussi, ah. comme Ousmane Sonko. Non, non, attends, non, posons bien les débats. Mhm. Vous avez dit mhm. la personne la mieux indiquée. tubaab la ñuy laaj. c'est-à-dire que est-ce que du moom ki nga xam ne nii moom moo ko war. Ousmane Sonko il est maire. mais xam peut-être Ousmane Sonko le président de la République Macky Sall il peut être le président du Sénégal certes loolu ak kenn amul ko kenn naatable wu ko. mais est-ce que Ousmane Sonko boo waxee ak waaye Casamance ak Macky Sall wax ak waaye Casas est-ce que dina nekk même poids aussi foofu lay waxee. waaw loolu loolu loolu loolu man je ne sais pas xam nga dafa am loo xam ne aussi. ñu tàllal le micro rek loolu neex wax loolu wóorul. parce que man Ousmane Sonko. xaw ma ban rapport la am ak waa MFDC. je n'en sais rien. tout ce que je sais. c'est que il a un grand intérêt. et ce serait une grande baraka pour Ousmane Sonko. que ce problème la soit réglé. parce que un c'est un enfant de la Casamance. c'est vrai deux il a des ambitions présidentielles comme nous. Mhm. trois les Casamançais l'ont plébiscité teg ko fa. tout à fait donc Ousmane Sonko il a un rôle à jouer. Mhm. mais est-ce que dinañ ko déglu ou non man loolu wax dëgg yàlla mun na quoi. il aurait intérêt nag à l'écouter. Mhm. parce que c'est un citoyen. et Ousmane Sonko moi je dis aux gens je ne suis pas avec lui mais peut-être que si je l'avais rencontré je ne le combattrais pas. Mhm. mais aussi li may wax dama koy wax ni ñi ne leen gis ngeen kaay ma wax leen dara ci Ousmane Sonko. gis nga fii aucun discours n'est nouveau. Ah. Ousmane Sonko waxu fi fi kenn waxut. c'est vrai <laughs> ce qui est sûr mooy tey am na comportement boo xam ne ñu bëri am nañ ci moom yaakaar te bu yàlla yaakaar bu yaakaar tas mais waa waa Pastef yi nañu bàyyi ku wax Ousmane Sonko rek ñuy commencé di saaga il lui rend un très mauvais service mm. la jeunesse de Ablaye Wade soppi dañoo commencé woon ci loolu Ablaye Wade ne leen loolu du mun a jëm kanam mm-hmm. et Ousmane Ngom l'avait dit la violence que nous avions a beaucoup retardé la marche di soppi c'est vrai nañu jàng l'histoire mm-hmm. Ousmane Sonko il peut être mm. mais xam nga Ousmane Sonko lan la soxla des intellectuels moom nee na sax ah. je veux dire que mun na nekk un messie dans le sens où mun nañ ko fal mu ñëw changer parce que li muy wax lépp bind ko bu ko appliqué il serait un messie mhm. parce qu'il aurait été le premier fait comme aujourd'hui Sadio Mané est un mhm. messie parce que il est le premier à la coupe d'Afrique xam nga Sadio Mané El Hadj a ko dàq El Hadj Diouf a mais ñi koy wax ñëppoon ñëpp dañ koy wax El Hadj Diouf moo dàq football téeméeri Sadio Mané du moromam sax mais Sadio Mané ci jamonoom la yàlla waxoon ne jot na te bu dul woon Sadio Mané doon keneen. en plus c'est quelqu'un d'humble professeur. ah waaw non bu dee boor boobu kaay ma wax la. Ah. non kaay ma wax la gis nga bi Coupe d'Afrique bi jeexee. Ah, ah. dama dem classe. booy ne ma monsieur yow doo seetaan match maa leen non ça ne me passionne mais dinaa ci yër ñu ne ma loo ci retenir maa leen ñaar. maa ne leen gis ngeen Sadio Mané bi mu ratee bit bi. nii la def. xam nga ban leçon la leen jox. Mm-hmm. mooy ne perdez jamais l'espoir. Mm-hmm. beneen bi mun naa maye leen imaginez quelqu'un qui peut avoir vingt et un millions par jour. humble Sadio Mané. deux milliards instant bi dañ ko war a jàngale ci école yi no pas mm-hmm. en tant que le jour. non le jour ne m'intéresse pas. mais l'humilité parce que am na ñoo xam ne fii tey. 3 millions la ñuy am par année boo waxee ñoom ñu saaga la ndey. non c'est vrai. El il était comme ça El Hadj Diouf était très arrogant. te Sadio maane fu El am na lu El Hadj Diouf amul. parce que yegg na fu El Hadj amul. moo tax El Hadj Diouf xoolal tey aujourd'hui nii am na loo xam ne su ko bëggee équipe nationale kenn du ko ko jox. moo tax ñu jox ko Aliou Cissé moo tax alal. warul yóbbu sa fit alal warul yóbbu sa ngoor Sadio Mané model la dañ ko war a jàngal xale yi non ils sont comme ça ils sont souvent comme ça Casamance non Casamance ngay dem fekk ku toog xoolal nga xeeb ko mais bu la waxee cursusam bu la waxee cursusam wala mooy kan wala lu muy am yow sa bopp da ngay bëgg a dugg ci biir suuf si loolu moom yàlla may na ko Casamance et évidemment c'est pas propre à la Casamance foo dem fekk ko boo demee Casamance aussi am na ñoo xam ne dañoo rëy je crois que nit la rek nit la man je n'ai jamais cru à l'essence Casamance yi ni lañ mel Kaolack yi ni lañ mel non non nit la foo dem fekk bu baax mais Sadio Mané moom wax dëgg yàlla en dehors di tànkam bu neex boobu non war nañ ko jàngal Sénégalais yi parce que il est très humble ce gosse là très model la yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla sàmm su ko neexoon mu ñëw indi fi affaire de franc-maçon affaire de góor jigéen tatoué yaramam yàq xale yi sol lu bon mais deful dara c'est un model te il n'est pas fêtard da ngay gis ne. voilà surtout surtout ça. ñu ngi noonu. modèle la professeur.